promouvoir Abdoulaye Sylla man kenn fayuma pour politique dañ ma fay pour ma afficher logo benn erreur nag nangu naa ni def naa ko mooy damaa war a gëstuwaat bu baax xoolaat bu baax mbir mi lan la xëy na nag dañoo juum wala soit yéen yéen a mais ak lu ci mënta am nag jàpp leen carrément ni ko man. salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi ñii ñan lan ndayu yeb laa xamul ñan lan ndayu yeb nee na fayuñu ko pour muy promouvoir politicien dañ koo fay pour muy taf logo. mais borom logo yi mooy politicien bi Abdoulaye Sylla mais di ngeen a def déggal mu ne waaw wala kon yéen yéen a comprendre ñoo la gën a comprendre yéen xanaa yi da ngeen a yaakaar nañu ñun ay sur xel yi ay dayu mëtt ci ne eh seen day de caga yaa ngi nii nag kin ne Njaay laay commencé moom dégg naa koo yu lay wër su wër yëpp la wër ci Sénégal abonné leen Afrique du Sud ak l'Ouest di wër koo yu su wër yow su wër yi dina lay yaxatak cuuju élevage moom muy béba bint yow moom doomu xaram nga bala fàllu rëccee nga war a ne doo am jëkkër parce que mooy sa lépp fàllu yéen ñaar a mën a ànd waaw man leen moom caga bu mag la fële ca Amérique bënn bënn bënn na lamin bi day wër rek di man ci ay koy yéen ñii jaruñoo ñee caram nday nii xale yu ndaw ay jigéen nanguwu leen a liggéey kat seen nday bëgg lu yomb yéen iPhone bu njëkk am ngeen ne a koy njëkk eh, am iPhone bu génn bu bees ngeen yéen a koy njëkk am génn bu bees yéen a koy njëkk am oh yéen a koy njëkk am 19 ans nga ubbi boutique 20 ans nga commencé dem Dubaï te. sa yaay amul xaalis sa bopp amul xaalis tuunu ndeyam juróo noo jaar jaay sa ngor wala nga jaay sa lëf noo foo mën a jaar joxe sa data dix-neuf ngay dem Dubaay di sept ans seize ans nga ubbi boutique seen yaay yi ñoo war a kat ndeyam jël seen responsabilité ci caga yi caga yu kat seen ndey yi di taf logo yi ñu kat seen tuunu ndey nag ci jigéen ñi lay ñëw benn par benn fuddan seen lëfal ndey doxat seen nëpp ndey karole seen lëfal ndey daamine seen tuunu ndey bat ngaay wasalaam